xoolal li Seydina li Serigne Babacar si wax Serigne Cheikh Seydina Cheikh lépp nga xool li Maodo wax rasulullahi moo tax maam Hindu dem moo soxna Safiyatu dem dinaa ko profité ngeen may ma ba ma na dinaa ci profité sant gërëm sëriñ Moustapha si responsable moral mustarshidina wal mustarshidaati di ko ñaanalit yàlla ndax daf ma defal loo xam ne te man 2011 laa ko gëj a gis imaam Moussa Guèye la yónni ci man fekk daf lu ko jiitu dafa dajale mbooleem responsable yi mu am senegal yépp dajale leen réunion def ak ñoom réunion ba noppi ne leen dama leen di yónni képp ku gis Chérif Ibrahima nang ma ko teralal te ormaalal ma ko daal di ne imaam Moussa nag yaay yow yow laay yónnee direct ci moom demal ca moom nga ne ko sa nijaay nee na mu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla te nee na dafa bëgg ngeen gisi mu ne ma lii nag bi mu koy wax responsable yépp a ngi toog mu joxoñ ma ne yow Moussa Guèye nag yow laa yónni teg ca bañ pare mu ne imaam Moussa sa oto na topp ci sama oto ñu jiit la ñu dem ca këram moo ko imam Moussa ñu añ mu feddaliwaat ko imam Moussa imam Moussa ñëw wax ma ko ne ko un peu partout dans le monde maa ngi jot di yëpp li shérif di jëf ci man ak li muy wax ci man ma ne ko man ba ma koy wax yàlla rek a tax kon mayit maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla kër maamam alaaji Malick daal yàlla bu ko ci gën ëppale yàlla bu ko kenn ëppale ci kër maamam Seydul Hadj malik yàlla bu ko kenn ëppale ci kër maamam Seydul Hadj Malick yàlla bu ko kenn ëpp ëppale ci kër maamam Seydul Hadj malik ndax nit bu la yëgee yëg rek nga ko mën a delloo te loolu rëy na ci ñun beneen bi mooy gàmmu Tiwaawan bi weesu délégation ba ma fa yebal bañ yegg see ne Chérif Ibrahima moo ñu fi yebal ñoom ñépp ñi yore organisation bi dañ leen ne yéen fi nit ñi di jaar du ngeen fa jaar yéen fi sëñ Moustapha di jaar lañ leen di jaarale mais loolu ku ko mën a fay du Ndiaye nit bu la defalee yiw da nga koy wax boo wéetee ñaanal ko yàlla hein ñaari baat yu mu wax tuddu leen ñaari baat yu wax tudd leen sant ma gërëm ma te man defaluma ko dara kon nag ñu ngi sant ñëppanceen li ma wax léegi sëñ Moustapha wax ko foofu laay jeexale wax ko si imam musa bi ma nee seen nijaay nee na sëñ Moustapha nee na dafa bëgg ngeen gisee ma ne ko ci kaw coobareem su ma wooloo ma wuy ji ko waaye su dee gisee parce que man xam naa sëñ Moustapha mosuma ko gis mu jox ma lu yées un million wala cinq cent mille mosul am te moom laa ubbee sama wax nit bu fekk te 2011 laa ko gëj a gis nit bu fekkee ne boo ko gisee mu jox la dara war nga koo gëj a gis walla déet ma ne ko la ma waxoon Serigne Cheikh way juram loolu laa koy wax te imam Moussa fekkee na ko moom moo fi des ak keneen te kooku du ma ko tudd parce que gars yi léegi danga leen di tudd jàmm lay wax sax waaye am na koo xam ne boo yenoon ndox mu ne yaa ngi may poussièreal ah loo ci mën nga bañ a tudd rek te junju ndax booba maag imam Moussa ak kooku ñoo àndoon dama daan def weeru koor bu jot ma jël ay teraanga yóbbul ko Serigne Cheikh bébés Serigne Cheikh ne Baye Omar Samb neel Chérif bu mu dem maag Baye Omar ñu toog mu ne ma sëñ Cheikh nee na li may wax dem leen ngeen laaj imam musa gi Baye Omar ne ma sëriñ Cheikh nee na ndax dafa bëggoon ngeen gise ma ne ko ne ko su fekkee moom du coobare bëgg may gis na ma may rek jéggal ma ma bañ koo gis parce que damay bañ sama pas-pas yàqu ni ma ko gëmee ak ni ma ko bëggee ak li may daj ci moom ñàkk gee gis a tax damay bañ rek gis ko sama pas-pas wàññeeku ne ko rek ma muñ dafa gis dàqee